Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Cheikh Mustafa santal dayob cant yaa te ka ngaayoo ci amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yum may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi ndax bis bu sëriñ bi fonk ba sas ko sa sa baay bu baax ba di sëñ Modou Moustapha mi nga xam ne lépp lu ko sëñ bi santoon def na ko li ko dalee ci indi ko tuubaa te xat damul fondement fa yemul ci fondement jumaa ji sax waaye def na sax élévation jumaa ji boole ci yar njaboot gi kooku jàpp naa ne bés bu mu woote fii Touba amul jullit bu ko war a wuute nun nag ndegam danoo bokk ci kër gi ñamewuñu koo wuute moo tax président de la république ne nu nañu ñëw si ziar la ñaanal la waaye it di sàkku ci yow ñaan nga ñaanal réew mépp ñaanal àddina bi ndaxte kat jàmm ci la lépp xaj jàmm la njëkk a sàkku pour nga ñaanal ko réew bi te it nga ñaanal réew mi naataange ci nawet bii ñu dugg xam naa ni boo ñu ñaanalee boo ñaanalee réew mi incha allah ñaan nga dana nangu ndax xam nañu bu baax sa taxawaayu sëñ bi Mbàkke ñu lay gërëm di la sant ci kàddu yi gàtt daal lool laa la doon bëgg a yeggee te di la feddali it suñu koddale Mbàkke jërëjëf Mbàkke sëñ bi nee na mi ngi lay nuyu yaa ñi nga àndal ñëpp nee na mi ngi leen di xamal ne bég na ci ñëw gi ngeen ñëw wuy si ko ci wooteem bii nee na na wax président bi ki leen yebal di Bassirou Diomaye Faye sëriñ bi nee na bég na ci délégation bii mu yónnee si ci moom nee na délégation gis na li ko composé xam na ne fonk na bis bi ngir tolluwaayu délégation bi lool yi nag nee na mi ngi ko ci sant di ko ci gërëm neena mi ngi xam ne yan bi nga xam ne yàlla yan na ko ko diis na lool te du yan bu yomb waaye nag ginnaaw suñu boroom moo ko yan ngir mu liggéeyal réew mi nee na mi ngi am rafet njort ci suñu dana ko jàppale ba mu yeggale ko ndax xam na ne lu baax rek wu tax a jóg te lu baax moom te lu baax ñëpp ko bëgg nee na mi ngi koy gërëm mi ngi koy sant waaye mi ngi koy ñaanal mi ngi sàkku ci borom bi ki nga xam ne Cheikh Moustapha mi woote jotaay bi dane woon dellu ci yàlla moo tax mu woote ko mi ngi koy ñaan ci bis bii yàlla defal ko ndam moom mboolem ñi ànd ak ci liggéey bi nee na kenn ku nekk it lam la sas ci liggéey bi la ci yàlla jàppale ba nga am ca ndam nee sant na bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf ña daa xiiru ak ñay matt seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Moustapha ña daa jabar ña daa xaatim ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw